waaw 67 pour cent du PIB président sax dem na fi def campagne euh, pour faire sauter le plafon UEMOA de 70 pour cent. Euh, mm-hmm. du PIB bailleurs yi topp ñu ko ci. mais yéen a ngi ci euh, benn kii de trois pour cent lan ngeen di financer PAP 3 bi euh, fii ak 2024 lan ngeen di terminer seen projet d'envergure yi nga xam ne ci ngeen yaakaar pour fortifier. Euh, seen seen seen seen mais même li ma la mën wax mooy tous les projets seront terminés parce que le financement avait été acquis mobilisé li ci ëpp depuis 2018. yow kay yaay lebkat bu mag bi. <laughs> defal ndànk rek <laughs> tout ça. daf nga ñaari groupe consultatif. oui oui non mais mais non attends aujourd'hui transformation bi mu àndi ci réew mi quand même ñëpp teg nañ ci seen bët. bu ñu nekkoon ci rythme bi ñu nekkoon avant 2012 kon tey jii du ñu wax ay les gens vont aller peut-être à la nage jéem a dem euh, ci euh, yeneen réew mais des améliorations importantes ont, été faites maintenant effectivement il y a un coût endettement le Sénégal n'a pas un problème d'endettement ah, maintenant ah, non non non non euh, Sénégal n'a pas un problème d'endettement maintenant service de la dette maanaam li ngay fay weer bu nekk wala li ngay fay at bu nekk am na ci ay pic da ngay am benn weer wala ñaari weer yu tegaloo yoo xam ne dafay yokk mais kooku li mu laaj service yaa ngi ciy liggéey et je pense que très prochainement ministère na ci am bunt il faut lisser pour que suñuy recette yi ñuy am xaalis bii dugg nga mën ci fay say bor continuer ci projet yi mais ça un travail technique que les services du ministère des Finances sont en train de faire. Ah, ancien ministre des Finances la la la la jàkkaarloo ak inspecteur des impôts xam nga. Ah. Euh, tamit danger bi mooy euh, Sénégal euh, mi à un moment donné maîtriser wuñu suñu capacité d'endettement président bi mu bëggee deuxième mandat dafa accélérer projet yi lépp xaalis bu baree bari. ngir mën a terminer. amul amul un franc ah. un franc. je hmm. dis bien amul un franc avant man ba ma fa nekkee. wala ba ma fa jógee wala la fa am tey. mais yow def nga defal ndànk defal ndànk waaw defal ndànk moo la. à la veille de la présidentielle. def nga groupe consultatif non groupe consultatif yëpp. financement bi lay jox c'est concessionnel. groupe consultatif. mais day dugg ci suñu. ci suñu suñu bor de non mais non ça ça dit que la banque mondiale te donne un prêt c'est cinquante ans de différé. waaw mais day dugg ci bor bi c'est zéro. c'est-à-dire yooyu fayaguñ ko ba tey du léegi. mais day dugg ci day dugg ci maasu jag bi mais bien sûr mais dama leen ne yooyu fayeguñ ko du léegi c'est-à-dire que bu la banque mondiale financé cent cinquante yi daf la ko may cest dire que le problème de la dette ne se trouve pas là deuxièmement pour financement wu état dison euh, disons suñuy besoin de financement kooku bu ñu koy outil tout ça dafay dugg dans le cadrage maintenant il eu des chocs comme Covid bi ci la sunu croissance euh, commencé euh, di wàcc parce que quand même sur les quatre ces euh, six premières années 2014 2018 on avait une croissance moyenne de 6 pour cent et un déficit qui baisse bu sa déficit di wàññeeku sa bor dafay wàññeeku en même temps sauf qu'à partir de 2021 avec la Covid euh, les institutions internationales ont ouvert les vannes Donc tous les pays ont augmenté leur déficit, par conséquent leur euh, leur endettement mais là euh, politique yi nga xam ni mettre nañ ko en œuvre au Sénégal c'est cyclique hein. Mais, mais, normalement d'ici la fin de cette euh, année ce sera un vieux souvenir pour euh, le ministre des Finances. mais xam nga seen dette bi fi mu toll am ngeen aujourd'hui des problèmes pour mobiliser des fonds sur le marché international. muy benn notation Sénégal ci yenn facteurs yi. Euh, wàññeeku na. muy muy ñaar. beneen bi mooy mënatu leen lépp au même condition da ngeen daan am ay taux concessionnels aujourd'hui il vous sera très difficile même de décrocher des taux semi-concessionnels non non non non li nga analyse bi nga def euh, du du noonu lañ ko war a jàngatee c'est le marché international qui a changé démb ak barki démb di nga daan leb ñu dabale ko 3 pour cent wala 4 pour cent léegi boo amul 10 pour cent mënoo ko am ça c'est le monde entier maintenant bu loolu amee ci àdduna bi réew yi gën a néew doole ñooy gën a sonn parce que ñun ñoo am beaucoup plus de difficultés que certains autres pays donc li ngay wax c'est pas propre au Sénégal c'est le monde qui a changé ni ñu amee jafe-jafe noonu la ko yeneen réew yëpp amee sauf que fii ni ñuy def ba gérer ko gàcce ngaalama nos services sont extrêmement compétents il pas de et la Banque mondiale saa yu ñu ñëwee. non non il vous tape mais il, il vous tape sur les doigts. il vous impose des subventions il, vous des d'arrêter des subventions. di mais mais non mais di naan arrêté leen lii. oui mais d'accord. c'est ça l'inconvénient aussi. d'accord daaw si on avait répercuté tous les prix kon xëy na duñu mën a toog fii di wax et le président a pris la sage décision. dëkk dëkk ñu ne nañu subventionné électricité enfin euh, énergie globalement électricité ak euh, essence ak euh, yi mu war a yi mu war àndal mais ça fait sept cent milliards la ñu subventionné nañu subventionné pain nañu subventionné euh, matériel agricole nañu subventionné engrais nañu bloqué supprimer tax yenn prix yenn kii mais taxul ni ñaa ngi jàmbat c'est-à-dire tey loo jëndee cent francs ci jamono jooju bu ñu tegoon bu ñu deful woon dara li nga jëndee cent francs peut-être cent cinquante nga ko waroon ci jamono jooju lañu nekkoon président ci yërmande mi ne nañu subventionné maintenant année bi ñu ngi wàññi mais taxul ni am nañu quatre cent cinquante milliards de subvention mais loolu boo koy fay plus la nga desee ci subvention yi nekkoon euh, daaw ak daawati jik ça te pose da ngay am problème ci de manière ponctuelle mais aujourd'hui ni recettes yi di évoluer ni ministère bi di lisser bor bi man awma sikki sàkk di d'ici quatre mois ou cinq mois tout cela sera derrière nous et ñu ngi ciy liggéey ak bu baax ministère de l'économie et des finance et au surplus si on avait ce risque là bu FMI ñëwee fii wala banque mondiale du ñu yem ci taper sur les doigts kon du ñu am ak ñoom programme jamais et la on a un programme avec eux sur trois ans donc y a ils nous attention fii am na risque bu leen continuer ils le disent bu boobaa aussi ñu on leur propose d'autres mesures et c'est ce qui est fait par le gouvernement maintenant oui il y a des difficultés il une inflation qui baisse heureusement njëg yi mu ngi wàññeeku sur le plan mondial am na ay jamono dollar bi yéegoon na dollar bi aussi mi ngi stabilisé wu plus mesures yi nga xam ne ñun jël nañ ko en interne di ko doxal donc mun nañu am ci ñaari weer ñetti weer wala ñeenti weer yi di ñëw euh, quelques petites difficultés mais dañ koy jàll facilement du lu structurel. alors euh, tout au long du mandat euh, des deux mandats on parle de Sénégal émergent mais bu les bailleurs euh, génnee les indices de notation des des, mm-hmm. Sénégal mi nga xam ne euh, Ablaye Wade moo ñu dugaloon ci cercle des pays les moyens avancés pour des raisons stratégiques mhm. euh, pour pouvoir capter certains fonds et certains bénéficier ouais. de certaines politiques euh, économiques euh, on est toujours euh, dans le cercle des pays les moyens avancés entre 62e parfois 68e alors que vous vous parlez de Sénégal émergent mais oui c'est loolu ce n'est pas paradoxal loolu moo war a aujourd'hui euh, ñu war a mettre en œuvre le plan Sénégal émergent il faut voir fi ñu toll woon les avancées qui ont été faites je ne dis pas que lépp baax na déet ñemewu ma wax loolu ndax euh, nit moom euh, la ñu liggéey lu ci bari am na ci am na solo lool lool lool mais li ci des aussi aussi aussi bari na maintenant sur le li ngay wax le bilan matériel en termes de route d'infrastructure le Sénégal a fait des bons mais cela a permis tax na sénégalais yu bëri am ay revenus tax na sénégalais yi mën a déplacé wu assez assez facilement maintenant il y des efforts effectivement affaire ci yenn euh, segments yi moo tax ñu war a gën a serré mbir mi ànd euh, doon benn pour euh, PAP 3 bi ñu utal ci secteur privé place bu bëree baree baree bëri parce que tey infrastructure yi am na ko ñu jéem a xool li ñuy wax améliorer le climat des affaires c'est-à-dire mën a ñëw Sénégal liggéey fii en toute sécurité sans problème bu ñu ko defee incha allah y aura beaucoup d'emplois et la croissance va revenir déjà année prochaine on projetait euh, une croissance de près de pour cent mais il y a encore un petit risque sur la produc ci production pétrole à gaz peut-être on sera à 8 pour cent à la fin de l'année alors dafa am ñu ñu ñetti message yuñ may yuñ may yuñ yebal ne il faut ma wax la ko